lii jax-jaxi ak jër-jëri ci diggante Mandiaye sekk ak yaayam jaaxal na sénégalais yëpp adama boos de Negri borom ñaari salaamaaleykum mu xëy daal di wili ay audio yoo xam ne Mandiaye Seck ak yaayam ña nga ca yekkantekate yaay ja ci boppam di ko daggal ay tifaar di ko ko tegal moom mi nga xam ne moo di Adamo Boss de Negri moo def benn live di artu Mandiaye sekk di ko xamal ni ko tengaa rek le tengaayam ci kudd ñu roof la cib gayel mbaa lu ko mooy yor naa lu bare bari loo xam ne bis bu ma ko génn danaa yëngal àdduna moom Adamo Boss de Negri ci biir live am boobu mu ngi naan ma bëggee yëngal Sénégal dama koy yëngal man nit ku garaaw laa te da ma xam bu baax a baax a su ma toogoon ay trois ans quatre ans yoo xam ne live bu ma tamit saa bu ma bëggee yëngal Sénégal dama koy yëngal ci ni mu ma neexee ndax li ma yor dafa bare nga xam ne bis bu ma ko génnee Sénégal dama koy taal mu tàkk jëppet moom aadama yaay ci Mandiaye sekk génn na daal di koy defal vidéo tontu ko tontu lo saf sap xamal ko ni ko génnal ci famille jàmbur keccet ci sa bopp ba set ci wecc génn ci fi jàmbur ndaxte diggante yaay diggante yaay la ak doom Mandiaye Seck ak Wally Ballago diggante mag la ak rak Adamo te nga bàyyi sa jaxase bi te nga bàyyi sa jëf ji nga xam ne jëfi seytaane dëggantaan la te boo moytuwul sa bopp nag fi ngay mujjee du baax moom yaay ci Mandiaye Seck tontu na Adamo xamal ko ne ko Mandiaye sama doom la Mandiaye itam nit ku ma bëgg la Mandiaye nit ku ma respecté la daal di nay fóot doomam ba mu set wecc gannaaw bi nga xamee ne Adamo génne na ay audio tegal ko ci ne audio yooyu nga génne audio la yoo xam ne yàgg na daanaka mat na ñeenti at ci ginnaaw nga génte waat ko di ko tegaat ci kanamu askan bi lii lan ci jub lu dul yëfi seytaane lu dul yëfi ak dugg yëfi famille la kon nag keccet ci sa bopp am na ci loo xam ne du sa wax te du sa liggéey aadamoo génnal ci li nga nekk moo gën ci yow bala moo ëppi loxo ci yow carnaval de Rio bi doon am fii ci Sénégal ba ñu cay yekk musiba ak mbelegaan Dj Boubsou ak Wally Ballago Seck ñoom ñaar ñi nga xam ne ay prestataire la ñu ca woon maanaam ne nekkuñu ca benn yoon boo xam ne me nañu ca aw responsabilité bu war a tax sénégalais yi di leen ca yekk musiba ak mbelengaan di leen ca yekk ketame lenn lu ca nekk ñu teg ku ci seen wu der moom mi nga xam ne mooy promotrice bi moom mi nga xam moo organisé woon boobu lépp daal dinay jéggalu sénégalais di leen xamal ni leen man sama structure bi nga xam ne moom laa indi fii ci Sénégal structure bu yàgg la depuis 2015 ba léegi ñu ngi organiser ay événement te itam diggante Paris ak Dakar la ñu koy amalee soirée booba la nga xam ne moom lañu doon amal ci King Fat Palace 2015 ba léegi ñu ngi koy amal musta am benn fay musta am benn coow musta am benn yëngu-yëngu kon nag maa ngi jéggalu sénégalais yi jëf ji nga xam ne xew ci King Fat Palace ci jamono ji Wally di way ak DJ ma nga xam ne moo doon présenté boobu lépp événement loolee fa xew yépp ngi koy jéggalu xaw ma ne woon bu xewee itam dana laal sensibilité ñenn ñi maanaam yëg-yëgu ñenn ñi ci seenub diine man nag jullit laa xam naa diine xam naa itam li diine wax kon nag nekkuma fi di yàq diine mbaa ma yàq sama société loolu aw ma ci benn yoon aw xalaat mbaa ma jàng jëm ci wàll boobu le kon nag lu naa askanu Sénégal beneen bi nga xamee ni itam bëgg naa Sénégal bàyyi ci xel mooy DJ Boubs ak Wally Ballago Seck ak bépp artiste boo xam ne te woon nga ci boobu lépp événement sa yoon nekkul ci ci benn responsabilité responsabilité bi ñun ñii la te ñun ñu ngi jéggalu sénégalais yi ba fa kanamu yàlla bu dee jëf ji da ngeen koo ñaawlu jëf ju ñaaw ji nga xam ne moom la élève Sacré-Cœur yi muy benn vidéo lomotif boo xam ne ay xale yu góor ña nga ciy siim seen mare ngañña ak benn xale bu jigéen kenn ka di filmer jëf jooju le gannaaw ba ca procureur autosaisir maanaam dugg ci dossier bi leen dénk ko ñi nga xam ne ñoo di waa DSC ñoom waa DSC dugg nañu ci làng ji gannaaw ba ñu ubbee seenu l'enquête jàpp nañu ki nga xam ne moo doon filmer boobu la vidéo daal di koy partager ak kenn ci acteur ji nga xam ne mane ngañam ak moom ñoom ñaar ñooñu leen teg nañu leen loxo te ba ñu leen tegee loxo leen dégloo ko lu ñutu enquêteurs ya la ñu jotoon nangoo ci seenu gémmiñ moom ñoom ñi nga xam ne ñoo jëf-jëf ji le nangul nañu ko seeni bopp nee nañu ñun ñoo jëf-jëf ji le waaye tamit ñoo ngi ciy jéggalu waaye terewul ña nga ca kaso ba jamono ji léegi leen téye ca DSC googule di wéyal enquête bi ci seeni biir Wally Ballago Seck gis nañ ko ak Mia Guissé gannaaw foto yi nga xam ne jot nañu koo gis Wally sekk ci benn vidéo boo xam ne mu ngi ak Mia ci studio di ko xamal ni ko yow Mia dama laa yàgg bëgg bi ma la yàggee gis ngay ànd ak sa borom kër ànd booba ngeen àndoon daf maa neex ba fa kanamu yàlla waaye nag jigéen nga mën nga li ngay tey tamit nag am nga avenir ci sa kanam maa ngi lay souhaiter bonne chance di xam ne war a gagner ci sa carrière am nga lu bare bare loo xam ne a def en tout cas maa ngi lay ñaanal jigéen nga la waay fekk yi ta ngay reetaan say bañ kottu bi nga xam ne moom la Alice doon def Alice actrice bi nga xam ne xamees na ko ci ci wiiri wiiri ngénte na ab doomam ba noppi itam gis nañ fa ay star yoo xam ne teew nañ ci boobu lépp ngénte ñu mën caa ràññeet la ku ci mel ni Bouba Ndour ak ki nga xam ne moo di Abba Nostra Bouba Ndour ak Abba ñoom ñu ngi gën a dëggal ne lépp maanaam ànd bi na ci seen diggante gis nañu leen ñu teew ci ngénte ndokkeel ko ci bi nga xam ne moom la di Alice di actrice bi lee Viviane Chidid borom yëg-yëg toj na fi nga xam ne moom moo di teeru bi ci soirée bi nga xam ne Youssou maa jigéen Ndour le di mala moo ko doon animé ko organisé boobu lépp soirée dafa daal di boole Viviane ci invité mi ya Viviane ba mu ñëw yéeg ci kaw scène bi sol na robe boo xam ne moom la ndax jekk ja waaye itamit na spectacle ba mu fa installé mu ngi firndeel ba léegi moom laa ren di jolof band ma nga caw yoonam te saa su nekk dafay ñaf fi gën a metti te itamit nag saa su nekk dafay gën a aj niveau bi muy gën a muy gën a kawe ci bi nga xam ne moom la ko ñëkk a xamee moom Viviane Chidid borom yëg-yëg yëngal na yëg-yëg ya keroog ca teeru bi yëg-yëgu Pape Alé Niang ba tey ma fa mu nekkoon gannaaw ba ñu ko ko yóbbu hôpital daal di koy defal ay soins gannaaw ba mu defalee aw xiifal Pape Alé génne nañu ko l'hôpital delloo ko ca kaso ba mu nekkoon muy Sébikotane gañu ko jëlee woon Pape Alé ma ngay gën di sëxiñ ci xiifalam ga maanaam génnul ci xiifal ga waaye da caa yokku leneen leneen la mu ca yokkaat moo di cellule ga mu nekk nee na dootuma ko génn fii ak libéré wuñu ma avocat ci boppam mooy addu nee na Pape Alé Niang loolee la ca yokku te loolee nag mu ngi gën di garaaw maa ngi artu nguurug Sénégal di leen xamal ni lépp lu a di génn ci cellulam lépp lu ci mën a xam ñooy àndoo ses responsabilités yi kon nag nañu teel a jug ci fi Pape Alé Niang te demande liberté provisoire bi nga xam ne dugal nañu ko ñu ngi ñaawlu ñàkk traité gi nga xam ne ñàkk nañu koo traité ba léegi waxuñu lu ci te itam lijjanti ko kon nag nañu ko lijjanti ci nu mu gën a gaaw baalu ko may bëy dana wéy mbuus bëy mbaadu wéy mbuus ci diggante Bougane Gueye Dany ak Mamadou Massour Diop bu Zik FM moom Mamadou Massour Diop ci bi la daal di toog di wax ci compte Zik FM yu ñu tëj mu ba mu leer bu fekkee direction bi nga xam ne moo di D-Media itam lu xew itam nañu ñëw wax ñu ko na muy waxee ci loolee àggalagul Bougane Gueye dugg ak téléphone daal xam le ne képp kuy wax booy wax na nga wax loo xam yéen ñi nga xam ne yéen a taxaw foofu le yéen ñi nga xam ne yéen a liggéey ak D-Media xam ngeen yi fii ni mu demee kon nag jarul ngeen ñuy laaj ñu indi leen ay leeral lenn loo xam ne ump na leen ci man Bougane Gueye Dany soxlawu ma ku ma xeexle soxlawu ma ku ma yuuxule borom dëj bi dana jooy aw dëjam xamul leen naka laay def ba fay leen bi ma lijjanti na naka laay def ba fay leen loolee ndax yéen a ngi koy wax loolee ndax koy bàyyi xel kon nag mbir mi samam xeex la sama xeex la comme samam xeex la bàyyi leen ma ak moom danaa ci wét te itamit nag danaa ko def kenn mu ware borom dëj bi dana jooy aw dëjëm ba mu saf sàpp MC Niass muy Baye Mbaye MC moom mi nga xam ne bokk na ci coowal Adji Sarr ak Ousmane Sonko daal di nañ ko woon convoqué niki tey ci talaata ji fële ci bureau doyen des juges di Maham Diallo moom mi di MC Niass ba mu génnee ci boobu le bureau dañu ko dékkee micro yi taskatu a wax ci li nga jëlee ci biir bureau bi mu ne lépp luy preuve te ma jotoon koo wax sénégalais yi teg naa ko ci loxoy juge bi te li ci des nag ñoom la seen obligé la waaye li ci des itam danaa leen ko leeralal ci benn point de presse boo xam ne danaa ko jàkkaarloog ak askan bi lépp loo xam ne war naa koo mën a wax te yoon may ma ko danaa ko génne wax ko teg ko ci sénégalais yi ba mu leer nañu ci seeni nopp ba mu mel ni midi bànjul ak i sondelam jaana wàcc soodaan la ilallah xayartu mbokk yi kenn du lëndëm di taal lamp bu ñuul lumière bi feeñ na sëriñ seex as barxaama borom li jaaba nekk ku yàlla baaxal ci wàllum xam-xam kenn naa tableetul ni moom mooy sëriñu Real de Madrid waaye tamit di ñaanal leen ki nga xamante ne mooy équipe nationale bu Sénégal coono jeex na jaaxle jeexati na yéen ñi doon wër lu baax te gisoo leen ko dal leen a jàmm ci sëriñ seex as barxaama borom li jaaba yow miy cat sonal ba loo dugg doo ci am ndam wala sax say mbir daal di dëgër loolu gaawal gaaw dem seeti sëriñ seex as barxaama borom li jaaba yow mii di wut wala sax ngay tukki mu daal di dëgër loolu yow mi sonal ba amagoo borom kër wala sax amagoo soxna gaawal gaaw dem seeti Serigne Cheikh Ass Barxaama borom ba yow mi bëgg a seetlu baa sax li si xaar foo munti nekk si àdduna bi gaawal gaaw contacter Serigne Cheikh Ass Barxaama mu daal di leeral say mbir te lépp koo teg si alxuraanul karim Serigne Cheikh Ass Barxaama borom lijaaba dafa taxaw temm ngir dimbali jàmm ñi gaawal gaaw contacter Serigne Cheikh Ass Barxaama borom lijaaba si 77 219 52 58 wala si 77 882 24